waaw di wax di xamal gars rek ne Selbé Ndom day defar maanaam ay garab yoo xam ne maanaam euh, ñi ngi ñi soxla mbirum puissance sexuelle dama koy defar. waaw waaw dama leen di jàppale dama dama yore ay garab yu naturel yoo xam ne dama leen koy jaay. loo xam ne incha allahu ku ci gisul sa bopp rek ñëwal ñu delloo la sa xaalis parce que lu ñu yàlla may la xam nga ñu ngi ñu ngi ciy defar bu baax a baax a baax. léegi selbe yematu ci seet bi léegi da ngay faj. man mën naa bind di xadi ah bindalaguma la xaar ba ma jógal la rek bu ma la bindalee nga xam ne lépp dëgg la damay bind de man samay maam ñëpp ay wàllu yu lañ. Mhm. samay maam yëpp. barakati laa ilaaha muhammadu rasulullah ay wali lañ dafa jotagut rek lu jot rek yomb waaw lu jot rek yomb dafay dafay doog a jot nag waaw waaw man damay bindee sama bopp li may songoo maa koy bindee sama bopp kenn kenn bindalu ma waaw alxuraan rek mos fa gis mooy ma bind <laughs> damay binde bind bu baax a baax ni puissance sexuelle moom ci kàttanu yàlla dama koy dama koy defar bu baax sax mm. waaw waaw képp ku ko yittewoo rek nga ñëw